wajalilaayi mu tubaabaat dayoo am ci dëkk bu sell bi di Touba la ko waral weesuwul taw bu métti métti bi nga xam ni moo amoon guddi fukki fan ak juróom-benn jàpp fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru septembre ci atum 2024 mbënn boobee waral ay njaboot yu takko takku génn seeni kër fekkoon Touba ci kanam waajaloon benn bërëb bu mu tuddee kër wàllu jamono ji ñuy wax ak yéen daanaka mbooloo mu takko takku moom moo fa ne gouverneur bu njaareem ànd ak préfet sous préfet ak service yi nga xam ne ñoo galamu ci nguur gi ñëwoon xool kër wàllu ci turu kilifay Touba ca kanam Serigne Abdou Fatah Gueye moom mi nga xam ne mooy vice président bu association bi jaajëfal lool gouverneur ci jéego yi nga xam ne def na ko ngir xool liggéey bi fu mu toll waaye jaajëfal it nguuru Sénégal ci jumtukaay yi nga xam ne indi nañ ko foofee ngir fexe ba nekkinu ñafa ne daal di jàppandi. ñoo ngi yëkkati kàddu kon ci e, turu junnatun liman nazama di yëkkati kàddu ci turu Serigne Abib mi nga xam ne moo jiite kuréel googu waaye moo jiite Touba ci kanam ci teewaayu sëñ Baara Mbacke mi ñu dendal ak kilifa yu ñu àndal yëpp Serigne Saliou Diakhaté Serigne Sidi sekk ak ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi fi doon liggéey ku mel ne Baye Modou Sall ak sëñ Abou sëñ Xaarim Dieng sëñ Mbacke Sey di la dalal gouverneur yow ak ñi nga àndal ci teew ci bërëb bii nii di yëkkati kàddu ba tey ci turu sëñ Youssou mi nga xam ne mooy coordonné liggéeyu junnatun liman nazama ci ndigalu Cheikh Mahamadul Muntaqa euh, li nu fi li nu fi tax a daje nag mooy kon leeral leen kër gi nga xam ne ñu ngi ko dëppee woon duppee woon kër wàllu te mu nekk xalaat boo xam ne xalaatu sëñ Abibu la boobaak léegi toll na ci ñeenti at yaakaar naa ne woon day war nañoo waajal makkaan moo xam ne léeg-léeg ñi nga xam ne dañuy loru ci ndox mi ba mënatuñoo nekk seen i kër ñu am bërëb bu ñu leen di def waaye taxagutoon ñu jublu ci ren jii nag biñ demee ba nawet bi tàmbali ab diir rek ci la ci daal di dogu nag ne nañ ko fexee taxawal te fekk booba sax taw bu métti bi toll ci 140 mètres cube taw boobu accès gu toon nga xam ne liggéey bi ñu ngi ko tàmbali dëgg-dëgg le 16 août lañ ko tàmbali woon waaye nag sëñ Abib moo balaa yëkkati dara day am ndigalu Cheikh Mahamadul Muntaxa bi mu ko waxee sëriñ bi daal di yëkkati fukki million jox ko ne ko maa ko ci tàmbalee sëriñ bi daal di woo mbokki taalibe am di jàmm yi mu xam ñu dugal ci seen loxo terrain bi alaaji sëriñ Seck C3S moo ko joxe bi ñuy ñëw ab tool lañ fi fekk waaye ñu boo xam ne moom léppam sëriñ bi la waaye ñu yëkkati nag lu luñ jàpp ne mat na ko ca tool ba teg ko ci loxoom mu joxe tool bi ñu daal koy aménagé daal fi fiy dugal ndox ci saa def fi courant tàmbalee liggéey bolog yi ngeen gis bologu chambre yi ànd ko ak daayira menuisier métallique bi ndax Touba tamit loolu mooy tawféex ji loo yëkkati rek am na daayira boo xam ne ñoo ca taxawal sëriñ bi fas yéene cee ñoom ñu jaayante ci ba taxawal bolog yi nga xam ne toll na ci six yoo xam ne bu ci nekk juróomi néeg ci nekk muy fanweeri nekk ginnaaw loolu tamit daayira menuisier daayira association des euh, des électriciens de tuba ñoom ñoo dajale def installation électrique bi ngeen fi gis respecté normes yi ba prise de terre sax def nañ ko ci sécuriser ko ngir rek euh, dëkkuwaay bi ni mu demee ginnaaw loolu nag gouvernement bi tamit daal nañ ci dugal seen loxo ndax euh, ministère de l'hydraulique yónnee nañ fi ñoom ay tentes yónnee fi ay toilettes mobiles jaar ko ci ONAS waaye armée ak gendarmerie gis ngeen tentes yu am solo yi nga xam ne def nañ ko fi ñee indi lu tolloog fukki tentes bu dee armée boole koog euh, juróomi téeméeri matelas ak juróomi téeméeri lal ak ñaar téeméeri lal maanaam ñaar téeméeri matelas ñaar téeméeri lal lañ ko booleel bu dee waa gendarmerie ñoom ñu indi fii euh, juróomi xayma yu mag yi boole ko ñaari junniy mat la ak it euh, luy tolloog juróomi téeméeri lal muy liggéey bu am solo boo xam ne fi mu ne nii may wax ak yow liñ fi recensé gun ci ay nit yu ñu fi dalal toll na ci 274 personnes naka démb tey jii lu tolloog 103 na ci te ba léegi nit ñaa ngi wéy di bindu di bàyyi ko ci quartier yu wute nag quartier yu wute wute ci dëkk bi ngir rek jàpp ne euh, ndox mi nangu ne seen i dëkkuwaay te amuñu fu ñu nekk am na ci ñoo xam ne sax dañ naan ba ñuy jógi ñoom ba ñuy jóg dañoo jóg rek la jàpp ni ci seen i ñu jël ko départ waaye xamuñu woon fu ñu jëm bi ñuy laajte di laajte bañ leen tegtal tegtal leen fii ñu daal di ñëw ndax bi yàlla dogalee ñuy ñëw sax nga ne le 19 le 19 septembre lañ fi tàmbalee ñëw ñu ñëw booba liggéey noppeegutoon dañoo jàkk-jàkk rek ñëw taxaw ne amatuñu fuñ nekk sëriñ Abibu daan ne ginnaaw sëriñ bi nag léppam jërmande la te lii mbirum sëriñ bi la nit ñi duñ leen delloo nañ leen daal dugal ci néeg yi ànd ak ñoom nag àggale finition yi ci des moo tax ba fi mu ne nii yéen a ngi gis ña ngay defar foos yi muy liggéey bu am solo boo xam ne biñ noppee ci loolu commission sociale bu Touba kanam koy daal di jël en bi ñoo koy gàddu nga xam ne diiru nit ñi biñ fi sancee ba tey jii euh, li aju ci ceeb ak diw ak ndugg ma xam ne moo ci war a ànd Touba ca kanam commission sociale ñoo ko yëkkati di ko teg ci seen loxo bi yàlla dogal ne Cheikh Mouhamadoul Mountakha joxe ndigal ne nañ taxaw kuréel gii nañ taxawal kuréel gii di junnatun liman nazama te boole ñetti kuréel yi Touba ca kanam Hizbut Tarqiyyah ak commune bu Touba ci la ñu jël lii jébbal ko ca loola nga xam ne léegi kaddu guñ ciy yëkkateeti jëf juñ ciy jëfati ci ndigalu sëñ Youssou nga xam ne moo koy coordonné ak kuréel googu ci lañ ci lay jaaree nga xam ne léegi liñ ciy defati lépp dañ koy comptabiliser mu dugg foofee ndax loolu mooy ndigalu Cheikh Mamadou Mountakha seenu teewaay nag rafet na moo tax ñu ne woon nañ leen leeralal lii soxna Ndeye Mbagane bi nga xam ne moo jiite district sanitaire te teewee fii jotoon na ba matuwaay yi nga xam ne ñoom it war nañ koo joxe ci ay recommandation yu jëm ci wàllu cet ak wér-gu-yaram joxe woon nañ ko fi nee nañ tamit dinañ accompagner ñi fi nekk ba ay consultation yooyu yëpp ñu mën ko fiy def kon daal lii mooy bu am solo bii nga xam ne ñu ngi ko fiy def ni ko leeralee tamit euh, commission scientifique et culturelle bu Touba ca kanam dinañ fi indi ab jàngalekat muy ngir muy taxawu donga daara yi waaye dinañ fi indi ay boroomi xam-xam ñuy waxtaan ak nit ñi di leen delloo siwaat ndax léeg-léeg am nattu bu dalee nit day soxla delluwaat ci boromam day soxla dëgër loo sëriñ bi te loolu mooy li nga xam ne ñoom moom lañ fi moom lañ fi moom lañ fi indi te muy méngoog doxinu dëkk bi di sant bu baax a baax nag euh, membre gouvernement bi nga xam ne tàmbalee ci ministre bi yor wàllu hydraulique tàmbalee ci soxna may mu Maymouna Dieye moom it ñëw na fi ba am yu fi indi woon te booba taw bu métti bi ñëwagut waaye Euh, armée ak gendarmerie tamit faaw ñu sant leen sant leen yéen ci seen taxawaay ci ànd gi nga xam ne yéen a ngi koy ànd ak sëriñ bi ci lépp loo xam ne joxe na ci ndigal. mu tollook mbooloo mi fa nekk jamono ji ci kër wallu daanaka mënees naa jàpp ne mat na ñaari téeméer ak juróom-ñaar fukk ak lu toftalu ñoom ñëpp bëgg sant loolu Touba ci kanam waaye gërëm leen ci jéego yi nga xam ne saa su ne ñu ngi koy def ngir saa su ñu amee jafe-jafe ñu taxawu leen ci anam yu mucc liggéey bii nga xam nag Touba ci kanam moo ko def ak ñoom Serigne Youssou ñi nga xamante ni biñ leen di gis ci télé beeg léegi nii seenu doxin dara dangu ci ñu jàpp ni ku ku def ni ñoom li Serigne Touba bëgg dana am ci dëkk bi kon ñun ñii nag ñi ngi tàllal loxo ñëpp di wax ñu jàppale ñii ñii rek ñoo jar a jàppale ndax ñooy ndaw yi bi ñoo xamante ni képp ku leen jàppale li sëñ bi bëgg dana am kon maa ngi maa ngi lancé ñëpp message waaye tamit di lancé sama bopp ngir ñun ñi nga xam ne dañoo nekk fii nañ ñu bàyyi xel bu baax a baax xam ne ay doomi aadama lañ waaye ay taalibe yi bi lañ yoo xamante ni tamit bëgg nañ ay makkaan yu ñu dëkk ba mën a liggéeyal Sëñ Tuubaa ni ni ni ni mu bëgg ñu liggéeyal ko loolu nag ñu ngi koy ñu ngi koy laase ñëpp di wax ñëpp ñu jàppale ñu ndax wax dëgg yàlla nit bu tollee ci war a samp kër yor njaboot gu sew te yey jëmtukaay yam war a mën a def yëpp dajewut ngir mu mën a jaamu yàllam dina xaw a diis kon ñu ngi leen di sant bu baax a baax te di leen gërëm lii nag mbooloo mi yëpp nag kontaan nañ ci bu baax a baax ñëpp ñu ngi leen di saluer ñëpp ñu ngi leen di remercier ñu dëkkandoo yeeg ñëpp képp koo xam ne bëgg na lu baax rek mi mi ngi leen di jaajëfal. waaye gouverneur sant bu baax Touba ca kanam ci jéego yi nga xam ne def na ko sant leen it ci lii nga xam ne ñu ngi koy def saa ne mooy lépp lu nu sumb di ci ànd nguuru Sénégal. ñu nuyu mbooloo mi yëpp nag suñu tur mais turu également kilifay état bu senegal ñoo ñuy yebal quand même pour ñu ñëw nemmee ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci diwaan bi nga xam ne moom la Touba kanam fàggu woon. mais ba ñuy ñëw mm. nag quand même dañuy ànd ak ñi nga xam ne am nañ yaakaar ne suñu fi ñëwee su dee am na yenn euh, jàmbat wala yenn soxla yoo xam ne war nañ ko mën a saafara soo ko defee ñoom ñu amun ci addu wala xool ban taxawaay lañ ci am moo tax bi ñuy ñëw ñu ànd ak préfet bu département du Mbacké ak su préfet bu Dame mais également ak yeneen service technique yi mais même ni OFOR ndax dañoon xalaat wàllu ndox mi ak également ONAS mm. mais ànd nañ également ci euh, wàllu wërgéeram médecin chef du sanitaire bu Touba également waaru kaaraange donc moo tax ñu ànd ak commissaire spécial bu Touba ak commandant compagnie gendarmerie donc loolu yëpp boole ko nag également ak kuréel bi nga xam ne moom la sëñ bi tënk li tax ñu def ko parce que mbir mi foog naa ne mbiru ñëpp la état du Sénégal mais également sëñ bi moo tax li ñuy njëkk a rafetlu rek mooy euh, bi nga xam ne moom lañ gis mu miti lool waaye lu muy miti miti ànd nañ ko ak ñi ko war a àndal te xam nañ ne euh, bëgg-bëgg bi benn la mooy wàññi tartar bi ci li nga xam ne mooy mooy mbënd mi kon lu ñu njëkk a def rek mooy rafetu lool ak également masawu masawu ñëpp nag ci ñi nga xam ne ñoo nekk ci jafe ndax ndox mi euh, sëñ bi wax na ko lool mbiri borom bi la donc suñu sañoon moom du am waaye nag borom bi moo yore ndoxam moo def li nga xam ne moom moo ko soob waaye ñi ngi masawu ñëpp rawate nag ñi nga xam ne tey dañoo génn seen kër ñu indi leen fii ci màkkaan bi nga xam ne Touba ci kanam faag wann kon li ñu njëkk a def rek mooy masawu leen ci suñu tur mais turu kilifa réew mi yëpp ñaare bi wax nañ ko léegi nag mooy euh, rafetlu lii nga xam ne mooy ànd bi am bi mbir mi amee ba léegi ak kuréel bi nga xamante ne sëñ bi teg na ko waaye nag également ak service état réeroowuñu réeroowuñu ndax foo naa ne def nañ ay ndaje yu bari pour xool nasandoo defandoo ko mm. te wax nga ko léegi si sa kàddu bërëb bii nga xam ne moom lañ ñëw état dugal na ci loxoom waaye kuréel bi également dugal na ci loxoom taali bi dugal na ci loxoom pour ñun loolu mooy tax ñu mën a euh, jàkkaarloo li seen mu gën a gaawe kon foo naa ne dañuy njëkk a rafetlu lool ndax xam naa ne amul état di def wala sëñ bi di def benn la ndax bëgg-bëgg bi mooy génne taalibe si jafe-jafe kon loolu moom foo naa ne ci jéego yooyu nag la ñuy continuer ak yéen ba incha allah rabi ñu weesu jamono bii nga xam ne seen situation exceptionnelle di des nag foo naa ne c'est des mesures définitives ki nga xam ne waxal na askan wi loolu foo du loo xam ne si tànk-tànk bi mën nañ ko saafara li am solo rek mooy ñu fexe li nga xam ne mooy jafe-jafe nan lañ si mën a génn te di si jiitu si lañ nekk mooy fexe ba ndox mi génn ci kër yi su defee ñenn ñi nga xam nañ dellu seenu kër it ñu dellu ndax nit aussi foo ne du moo koy gënal fu mu di doon kon pour le moment urgence bi te loolu lañ nekk mooy fexe ba ndox mi génn ci mbedd mi génn ci kër yi te nag gis nañ ay jéego nag ñu ci def ndax boobu ba léegi bi mu amee am nañ ci yaakaar ne résultat yi ñu ngi koy partage lu ci bari génn nañ ci ndox ma mais nag des na waaye suñ ko continuer nii incha allah am nañ yaakaar ci fan yu néew ndox mi dina dina fa génn leneen rek mooy euh, lii nga xam ne mooy appui bi nga xam ne war nañ ko mën a def moo tax ma ne nañ ñëw xool d'abord ñi nga xam ne ñoo fi ne nan nekkin lañ fi ne ndax foo naa ñu nit suñu njaboot lañ bokk su ko defee lépp loo xam ne xalaat nañ ne état war na leen ci mën a gunge incha allah rabi dinañ ci taxaw ànd koo nag ak service technique yi suñ delloo nañ xool ban geste nañ ci mën a def it pour vous accompagner ci nekkin bi nga xam ne ñoom ñu fi nekk en attendant nag ñu terminer recensement bi xool l'appui bi nekk ci loxo état te jox ñu ko nan lañ koy mën a mën a séddale mais dans l'urgence mm. mën nañu xool ci la fi jàpp ndeegum mm. ban geste lañ mën a def pour mun leen gën a dimbale ci nekkin bi nga xam ne moom fi nekk da tànk peut-être euh, recensement bi recensement lu weesu loolu Touba ca kanam it di leeral ne jamono ji ñuy wax ak yéen mi ngi wéyal ay yëngu-yëngoom ngir jàppale askan wi ci jafe-jafe yi nga xam ne jamono ji ñu ngi koy dund mi ngi koy def ci turu junnatu liman nazamaho di kuréel gi nga xam ne mun taxaw Mbàkke moom moo ko taxawal boole ko maire yi ak Hizbut Tarqiyyah مثل اسمها بجاي خير من أبات